Eh, kon mën na noo démarrer gannaaw di jégalu ci xaar bi nga xam ne ñu ngi koy xaar boobu ba léegi dañ doon xaar suñu yeneen mbokk naataango yi rek ngir ñu mën a démarrer eh, bala ñoo tàmbali nag neen ko baaxoo di def saa su ne ay jullit wala ay doomi aadama fu tase bala ñoo def dara ñu tijjee ko ñaan ci jotaay bi sunu papa mu ngi fi di waajuru buur géwal sunu président dañ koy jox mu defal ñu ñaan ba noppi ñu doog a euh, tàmbali jotaay bi papa bismillah ñu nangu ñaan ñu nangu ñaan salaamaaleykum ñu ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak sant santam di jéggalu ci retard bi nga xam ne am na gannaaw bi nga xamee ne woote nañ depuis onze heures waaye li ñuy wax rek jaam ak pexeem yàlla ak dogalam li waraloon woote bi mooy ñu waxtaan sunu biir sunu wàllum liggéey jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci biir loolu euh, suñuy kilifa ñu ngi fi toog buur géwél mu ngi fi toog di président Yatma mu ngi fi Fadel mu ngi fi Pape Doudou mu ngi fi euh, doyen abu Ndour tamit mu ngi fi Babacar mu ngi fi ak euh, ñeneen ak ñeneen ku ci mel ni ñoom Petit Gallo ainsi de suite bu nu bu nu dee lim mën nañ fee bañ a jóge di gërëm presse bi yëpp ndax li may wax toujours ku am loo bëgg a wax ci ñun ngay ñëw ku am soxla ci ñun ngay ñëw kon yàlla na ñun tamit ñu génn wax sunuy mbébét ci réew mi sunu wàllum liggéey ak yeneen ak yeneen ci biir loolu. dañuy jox gars yi ñu euh, tàmbali waxtaan bi am na sax ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci yoon bi di ñëw euh, bu ñu ñëwee ñu dabe dañuy tàmbaleeg euh, sunu président Bour Guéweul mu ñëw ci yenn point yi bu noppee dina ñëw ci Babacar dina ñëw moom ci wàllum làmb ji dina ñëw ci Pape Doudou moom dina ñëw ci wàllum liggéey bi technicien yi ndax li may wax toujours. ñun ñëpp benn famille bi la presse boo nee presse rek ñëpp dañ ciy dugg Pape Doudou dina ñëw ci wàllu technicien yi ak li ñuy jànkoonteel dina ñëw ci euh, Yatma moom it dina ñëw wax ci xalaatam dina ñëw tamit ca euh, ci doyen Abou Ndour xëy na moom ma nga toogee ci ginnaaw waaye ñoom dañuy soxla seen xalaat ci biir loolu dañuy tàmbalee buur ndax doon na loo xamante ni am na loo xam ne xew na fi mooy keroog dem na ci làmb ja président CNG génne ko làmb waaye ci biir loolu tamit am na ci loo xam ne xewoon na ndax li may wax rek euh, coowal buur géwél dafa wàlliyaan si keroog ci manifestation yi gis nañ ci suñuy naataango yoo xamante ni euh, sonn nañ lool ci terrain bi gaañ nañ leen fa dóor nañ leen ay grenade lacrymogène dinañ waxtaan tamit ci wàllum carte de presse nationale yi am na ñoo xam ne dem nañ déposé ba tey mënuñoo am am na ñoo xam ne ba tey mënuñoo déposé am nañu déposé mënugunoo jot seen i carte loolu lépp dinañ ko leeral tey ci jotaay bi kon dañuy eh, tàmbalee président buur bismillah <coughs> jërëjëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp Euh, di leen ziar boole kook di leen ndokkeel gis nañu bi ñu wootee tout la presse ñëw nañu wuy suñu xanaa rekk di njëkkee di gërëm suma waajur bu góor euh, moom mi nga xam ni tey ginnaaw yàlla moom lañu fi dese di ko ñaanal suma boroom sàmm ko te wéral ko te yàggal ko fi bàyyi ko fi sunu kanam moom ak njabootam gépp ci barakat Cheikhul Khadim di ñaanal sunu wéyjur wu jigéen bi nga xam ne jiitu na may wax rek li ma daan wax mooy yërmande gi mu amoon ci ñun bi ñu nekk ay gone yàlla na ko sama borom fula ba fa mu tëdd képp ku mu fa fekk ak ku ko fa fekk sunu borom booy la ci yërmande googu di sant yàlla di sant sama bunt Cheikhul Khadim Mawlana Cheikh Ibrahim ibn Sëñ Mbàkke Madina di ko ñaanal sama borom sàmm ko xanaa rek euh, bu ñu bëggee tekkiwaat xel yi dafay baax ci ñu leeral ak fàttali lan moo waral tey point de presse pour que sénégalais yi fépp fu ay nekk ci àddina mën a déglu suñu message pour mën a comprendre parce que bëgguma ñu ne xeexu buur la walla bëgguma ñu ne dañu def buur nangam moo tax déedéet mooy le mal est plus profond que ku ne xam na ni presse sénégalaise surtout la presse en ligne ndax ñoo ci ëpp tey presse en ligne bi ñoo ëpp télé yi ñoo ëpp rajo yi ñoo ëpp la presse écrite ñu ngi jànq jànkuwanteeg ay jafe-jafe ak i tolof-tolof ak i brutalité yoo xam ne tey li leen ko yóbbee mooy bëgg informer juste et vrai dama wax ni on est au vingt-et-unième siècle tey Sénégal waroon nañu toll ci doxalinu doomu aadama bu ci nekk ñu respecté say àq ak say yelleef jamono nag dafa am ouverture ubbeeku ba tey domaine informatique yegg foo xam ni ñun Sénégal li ñu jàpp ni que bari na sax defaguñ ci zéro virgule pour cent donc ñuy lancer un appel solennel jëm dans ce sens la que ñu dimbali xale yi bàyyi leen ñu liggéey seen liggéey sur le terrain des fois mooy seetaan yenn image yu j'ai le cœur meurtri ñun ñi fi nekk ñëpp tey daje fi la majeure partie ay PME lañu des petites et moyennes entreprises ku ci nekk tey à travers ces sites web là wala ces chaînes YouTube gàtt-gàtt yaa ngi fay ñaari personne wala ñetti personne tey ñett nit ñooñu ak sa jëmm muy ñeent ku ne xam na ni la chef de l'État et la garant de la constitution tey ku ci nekk tey am lante woon na ak yow xëj na sénégalais bu ci nekk droit wutal la liggéey kon bu ñu ko uutoo ci loolu dama wax ni première partenaire u xëyu ndaw ñi ñun la presse en ligne ñun ñoo njëkk wuy si ci appel boobu solennellement tey bu ñu xoolee nombre bi ñu doon ak li ñuy liggéeyal ci ay nit di dundee tey ci internet bi kenn xamul nu mu kon dañuy benn pàcc boo xam ne ci réew mi walla ci presque bi dañu war a respecter dañu war a fonk ñun nag li may wax du ñuy républicain du ñuy démocrate du ñuy chiite du bu ñu kenn jàppee comme si ennemi walla kenn jàppee ñu comme si allié ñun suñu wareef la ñuy def saa bu ñu xëyee mooy informer juste et li booy yi daj ci manifestation yi met na trop barki démb toog naa dégg sama kër benn kilifa addu ci façon boo xamante ni que jooy rek laa bëggoon muy le doyen Bamba Kassé bu Synpics mooy tey boo taxawee ci kanamu alkaati yi ne ñun dey ñi am carte nationale de la presse bi rek la ñu reconnaître keneen ku ko yorul suñu yoon nekku ci mooy livrer nga booy yi pour que ñu malmené leen mate leen duma leen te pour man gëmuma ni que c'est un discours très responsable venant d'un homme très respectueux venant d'un intellectuel venant de fervent défenseur des droits de la presse bu mel ni le doyen Bamba Kassé tey est-ce que la ma wax barki démb mam Cheikh ne ay kilifa bu ñu nekkee ci mbir gis seen njaboot di yaatu dañu war di yëddu ak di yërndu est-ce que dañu war a abandonné xale yi na bokkuñ ci ñoom déedéet bu ñu ko defee def erreur parce que ces gosses là sont plus nombreux que eux ces gosses là détient xam-xam boo xam ne ci wàllu li ñuy def ak amour boo xam ne à travers li ñuy def am ay support yoo xam ne tey état du Sénégal fayu leen mënu leen ko tere parce que moomu ko donc bu ñu jàppee ni que am na ay dérives ci presse en ligne bi te dérives yi jàpp nañ ni que ci suñu biir lay jógee wala ci gos yi pourquoi pas duñ ñu tàllal loxo ñu tàllal leen loxo ensemble gis naa ni que dinañu mën a trouver une solution te solution la boo xam ni mooy gën ci ñëpp gën ci réew mi. te du yàqal kenn dara dama leen ni ces la là n'ont que leur outil de travail dañu yor ay soxna yor ay doom di fay luyaas dëkk ci kër di dundal seeni njaboot certains parmi nous am na ñoo xam ne dañuy jàng tey ba tey à travers leur chaîne YouTube ci la ñuy fayee seenum njàng mais ce que ñooñu dañ leen war a génn ci réew mi est-ce que ñooñu dañ leen war a tere liggéey bi man buur loolu mooy suma principal combat beneen point bi ci des concernant carte presse lu jara waxtaanee la man bi ma demee di déposer ki nga xamante moo jiite correct di suñu doyen coor ñu di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam man bi moo wooyee ne ma mënoo am ci carte presse dama tiit parce dafa bokk ci point yi mooy dañuy bépp journaliste boo xam ne am nga plus de dix ans d'expérience kon defe naa ni man war naa ko mën a am et ñan lañ ko war a jox ak ñan lañ ko jox foofu la problème bi nekk mooy ñan lañ ko jox est-ce que ñiñ ko jox tey ñoo gën a méritant ñenn ñi nga xamante ne que tey ñu ngi ci presse en ligne bi. man bi ma waxee ak moom dama ni ko pourquoi pas ngeen catégoriser mbir mi et pourtant ñu ngi koy xañ ñenn ñi man gis naa ay snapper yoo xam fu président de la république yi dem ci àdduna bi ci ay sommet pourtant dañ koy accrédité gis nga kooku il est plus journaliste que nous déedéet tey boo génnee Sénégal dans les pays les plus développés les youtubeurs sax lañ leen accrédité ci sommet yi gën a mag ci àdduna bi ay coupe du monde ay coupe d'Afrique ay leneen ak leneen pourquoi ñun Sénégal duñu ñu ubbi suñu xel yi beneen bi ci des mooy aide de presse aide boobu loi bi dafa am nu mu ko tëralee ne képp ku am site web muy benn am ay këyit ay këyit pour sa pour sa support de communication ba noppi embauché ñaar wala ñett yoo xamante ni que reconnaître nañ leen inspection. du travail waaye man gis naa ci ñooñu ci ñu bari ñoo xam ni respecté nañu droit yooyu te taxul ñu am li gën a fës nag ci jataay bi dafay laaj ay leeral ndax dégg naa ci ay sorti yu bari yu wuute dimanche la mbir mi am dimanche passé ci combat Tyson 2 ak Caatu Yoff ba kenn ku ma àndaloon ci bés bi Mbaye Diop fekke na ko te gis na lépp ma di sant yàlla le président Bira Sène li mu bëggoon mooy toroxal c'était son seul objectif man Bira Sène ci làmb la ma fekk ci làmb la ma fekk may ànd ak su may rakk ñuy contribuer ci làmb ku ne xam ne ni site internet yi chaîne YouTube yi li ñuy contribuer ci làmb te kenn fayu leen amul benn support communication bu koy contribuer ci làmb léeg-léeg gaa ñi jógee face to face classe yu ñoom Babacar Diom gi ñu sàcc sa téléphone nga dem muñ léeg-léeg nga gis ku jóge ci point de presse su mbër di ñibbi amoo paas pourtant pendant des années ñu ngi dund loolu bi ma ñëwee dugg ci làmb ji mbay Diop woo ma ne ma dañ ko téye ci kaw ma dem di ko ñaanal commandant Thioune fekk mu fi ma taxaw ne ma wuyul ci kaw ma ne ko kan moo may woo mu ne ma noo Cheikh Sarr moo lay woo ñu ànd dem ci kaw mu ne Cheikh Sarr buure ngi Cheikh Sarr ne ko buure ngi comme lan li lay wan ni c'était une décision personnelle parce que Cheikh Sarr ci bureau exécutif CNG la bokk Cheikh Sarr ne ko lan la lu xew mu ne ko j'ai reçu des instructions que buur tey bu mu en enceinte bu mu liggéey Cheikh Sarr reposé ko la question ne ko lan moo xew man li nga wax ni xaw ma expliquer mu ne ko non je ne parle pas devant eux du ma wax seen kanam ànd ak Cheikh Sarr dem ci benn waa ju nekk CNG xaw ma turam ak Maysa ñu wax seeni wax ma ñëw ne Maysa mu ne ma ne ko yow tu es un homme très respectueux bu làmb ñëpp jox ci donc di mois qu'est-ce qui se passe lan moo xew Maysa ne ma noonu dara non benn malentendu rek quoi ma ne ko décision bi kan moo ko jël ak lu tax ndekete ñoom li leen tax mer. mooy le 8 mars bii passé dama def benn émission bu ñu invité woon fële ca Leewtoo biir 2 man la woon Lamine Seck bu Lutte TV euh, Keba ak Pël bu rafet ñu laaj ma ci doxalinu làmb ma ni kii ñu fi teg bi ñu ko fi tegee ba tey làmb dafa gën a bari ay problème te man mën naa ko argumenter parce que bu ñu demee ba structure bi mel ni CNG de lutte ñuy négocier ak di maslaa ci ay règlement yoo xam ne am na ñu ko teg seen kaw ba pare kon y a problème ma jël exemple sur le cas de Siteu bi muy bëre keroog ak Papa Sow je n'ai rien contre damay expliquer pour ñu comprendre li ma wax jote am na ñu xaañ Papa ba muy naaj ñu ne kat dañu jël ay daan ñoom CNG teg ko ci kaw tëggkatu cité bi mooy amatul droit dugg ci làmb ji mais en notre grande surprise cité dafa taxaw ne leen bu leen bu sama tëggkat duggul ci làmb ji du ma bëri donc il avait défié l'autorité keroog bi ñu toogee biraat seen def conférence de presse man maa ko laaj question boobu mu ne ma non dafa am. nit kilifa gu ma ñaan moo tax ma bàyyi ma ne ko non kilifa googu la ñaan tey nga bàyyi am na fi ay mbër ak ay nitu làmb yoo xam ne def nañu lu gën a néew li dëkkatu cité bi def te ba tey seen sanction mu ngi en cours ndey ku ma posé ñu question ci taxawaayu ku mel ni Kéba ci làmb ji man sénégalais la nitu làmb la ci dëkk bi laa dëkk léegi ma def ci làmb plus de seize ans ma ne ko man de li ma gëm mooy ba ma doon tànn tey ki gën a yërëm làmb mën naa ni Keba Kanté mii la li tax mooy lu ëpp dix ans wa ngi fu nitu làmb jaxle mbaa nga feebar mbaa nga ne ci ay jafe-jafe moom mii lañu koy wax mu faj ko sans bruit ma cité ci ay cas Jules Balde Junior feebar na fi amee weer weeru yàgg amul benn nitu làmb bu mës taxaw biir këram ne ko massa moom moo ko jël en charge dimbali ko di ko faj di ko dimbali ba ni kooku wujji àdduna la cas de Djibi Ama le cas de Mohamed Ali la cas de Fatim Diop Dabakh la cas de Pape Diop ma lim ci ay cas yu bare bari waa léegi depuis kañ lañuy tere làmb bu nit ki jëfee lu baax ngay acteur bu bokk ci làmb doo ko wax dañ ko war a wax tey nitu làmb feebar na le président CNG musul yëkkati tànkam ñëw ci kër ne ko mas waxuma waxuma sax dimbali ko mais ci aspect diggante nit ak moromam Abbas min daan nekk estat buntu loge feebar na fi ak yu bari pourtant benn nitu làmb mosu dimbali mais Keba Kanté moo ko doon dimbali yooyu dafay ay fee yoo xam ni dañu ko gis war ko wax bi wajjillaahi taala karim te yàlla tax dañu am obligation wax ko te yàlla tax ngir ñi nekk ci làmb te am doole xam ni am na ci biir làmb ñoo xamante ni que amuñu doole te dañ leen war a dimbali ndax ñooñu amuñu lu dul làmb te Keba en fait partie lii laa wax lii lan moo ci jar bu buur ñëwee ngeen génne ko estat est-ce que Bira Sène buur la est-ce que Bira Sène dafa donn CNG bi moom ci ay juróom wala est-ce que dafa war a toog jiite la CNG. boo toogee ci émission télé tagg ko mu ne la sama xarit nga boo waxee sa xalaat mu woo la jël téléphone nela ne la boo ma dinaa la aj li nga wax boo ko waxaatee wala nga ñëw estat mu ne la doo fi dugg Bira Sène xamul fi mu dugg tey ñun la presse en ligne dootuñu bari na yenn yi beneen bi ci des mooy làmb day jot ci ayu Bira Sène lañu ñu mës a cagé ay journaliste def ay barrière gu mel ni kaaf bu journaliste yi ñëwee ñu sol leen xool bii acte bu ñaaw xoola ñu cagé la ci barrière yoo xam ne mënoo génn mënoo filmer parce que nit ñee nga jaar sa kanam tout le temps Bira bi mu ñëwee ci làmb tey làmb dafa gën a bari ay problème donc ñuy attirer l'attention du ministre des ba Yankhoba Diattara mu xam ni que Bira Sène n'est pas l'homme qu'il le faut Bira Sène n'est pour diriger sa CNG la parce que amul xel mi amul xol bi pour mën a dékk ñooñu làmb te amul xam-xam pour diriger làmb tey seetaan naa benn video vidéo le may Maysa Ndiaye joxe benn argument dama bëgg ngeen bu seen nopp de ne ok CNG moo am sañ-sañ organiser comme mënu ko dafay céder promoteurs yi bu cédé promoteur yi ci biir sañ sañu CNG am na droit xool ni promoteur bi accrédité ci ay journaliste ku cay yàq làmb mu interdit la arène nationale waa mbokk yi buur mi passé plus de quinze ans biir arène nationale buur mi nga xam ni tey moo njëkk yor micro ci site internet dugg ci làmb est-ce que buur mën nañ ko considérer comme ku yàq làmb te pourtant day déglu naa ay nit ba tey ñu koy critiquer ba xoj ko te dara fekku leen ci wala ñun presse en ligne bi ñoo amul bàjjan wala ñun presse en ligne bi ñoo amul ku ñu défendre Bira Sène dafa juum ci cible tey la ñu gën a mànkoo tey lañu ñu gën a ànd tey la ñu gën a bëggante tey la ñu gën a jàppante man buur géwél sama waxi démb mooy suma waxi tey intérêt xale yi ma àndal moo xam ci làmb gi moo xam ci yeneen kuréel yi ñu bokk wallahi l'azim, je les défendrai au prix de ma vie. Je les défendrai au prix de ma vie. tey le président Macky Sall nit a koy bañ ak di ko xas ak di ko noonu ca nit ku mu jox ndombal tànk walla pouvoir mu di ko xeexee ak bi ci noot ñenn ñi rekk ci kookee lay jaaree. li ñu gëm nag te bëgg ko fi may tëjee mooy ñu ngi ñaan le ministre des sports bu dee mu ngi ñuy dégg di ko ñaan le président de la république nous demandons le départ de Bilal Sane lu war la yokkul te ku yokkul da ngaa wàññi mbër ki démb la équipe nationale du Sénégal jóge Niger gis ngeen defet bu metti bañ fa jëlee. promoteurs yi tey ñu ngi am point de presse di kaas amateurs yi ñu ngi subir lu metti mbër yi ñu ngi daj lu metti bi ñu dëkk ko un million ci benn seetu bu mu yor kon mbër mi yor béy jënu kooba nekk ci biir enceinte bi xanaa 10 millions lañ ko war a dagg ñu ngi ko dagg ci benn furno bu mu indaale ci làmb ji un million xanaa kon bi Balla Gaye di bëre Gris Bordeaux jànj boobu mu fa taaloon 10 millions lañ ko war a amal jëlal la cas mobile 2 mbër mu ñu aj juróomi at cinq ans cinq ans en mu daan dundal fameem ci làmb Bira Sène aj ko cinq ans parce que li mu wax ci Bira Sène neexul moom Bira Sène Zarko Ada Fass une heure de temps retard ñu aj leen un an xanaa Balla Gaye Boy Niang cinq ans la ñu donc jaay doole moo nekk ci làmb ji sunu mbokk journaliste yi ñu ngi leen di di leen gazé di yàq seeni matériel di leen duma di leen jàpp di yóbbu ci auto police yi di leen jàpp di yóbbu ci kaso yi loolu la ñu wax ni que na dakk ñun ñu nekk tamit ci corporation bi ñu gën a xam suñu bopp bañ a nekk une presse poubelle li may wax chaque jour y a des sujets plus importants à traiter dans ce pays là tey ñun tey dañu war a bokk presse bi war a mën a indi stabilité ci réew bi waruñu bokk ci presse bi taalum réew nañu moytu di afficher la vie privée ay gor nañu moytu di publier yenn dossiers yoo xam ne amul njëriñ ci réew mi te amuluñu njariñ te ñu jéem tamit ñu jéem a dox ci kaw yoon mooy faxe ba wuti ay këyit nit buy kaas ay droit dafay def ay devoir Ibrahima fay Beuz Lutte TV maa ngi lay nuyu. di la ziar di la ndokkeel di la jox sa wàccuwaay tey fii nga fii ñu toog tey waaw yow yaa fi war a toog comme li ñu wax démb ndax sa xalaat dañu koy soxla chaque jour ak sa gis-gis moom mii bokk na ci li ma njëkk fekk ci làmb jóge Montréal nekk étudiant mënoon fa toogee toog dund dundam keroog bi ñu gisantee dafa ma ni li ngay def ci làmb moom ma inspiré ma jàpp ni que war naa mën a dolli te boppa wax dëgg yàlla mu ngi dolli donc nañu kóor góorgóorlu ñu ñëpp xam ni suñu rôle mooy defar suñu rôle du yàq suñu rôle du yàq suñu rôle du publier euh, la vie privée d'autrui suñu rôle du inciter à la violence en tout cas li may wax xeexuñu ak nguur na leer xeexuñu ak opposition na leer xeexuñu ak le CNG xeexuñu ak le ministre de la communication xeexuñu ak le SYNPICS xeexuñu ak la CORED mais dañ leen di fàttali que ñun tamit ay citoyens lañu dañu bokk ci réew mi le SYNPICS le doyen Bamba Kassé tu as l'obligation de nous tendre ñu toog waxtaan. gindiku xale yi gën a xam fan la jaar la correct mu ngi fi tey bëgg a ñoñal ak yoonal li nga xamante ne que presse en ligne bi ñu ngi koy def tàllal nañ leen loxo ndax bu mbir yi jaaree yoon ñun ñoo ciy bénéficié wu le ministre des sports ñu ngi koy tàllal loxo mu revoiraat li CNG di def waaye revoiraat li Bira Sène di def xam ni mbir mi Sénégal réew mi tey stabilité la dese te la soxla te benn ruq bi am stabilité actuellement làmb la fala la pour cent de la jeunesse sénégalaise di daje di béggee di dund seen sport ak seen culture te dara du xew donc nañu gëstuwaat pàcc boobu bañ muy am violence bañ muy am réeroo la doyen Abou Ndour euh, maa ngi tuub di jéggalu ndax yaa waroon a toog fii yaay suñu doyen ci métier bi ñun ñëpp fii lañ la fekk jaara aussi mention spéciale Malick Mame Diarra ndax li tax ma koy wax léeg-léeg damay ñëw làmb man lot lool moom laay gis ci bunt bi moom maam jaara lu ci bari lu ma waroon a def tey moo koy def ci confrère yi ñi moo leen wutale accréditation ñi moo leen ñaanal ñu pour ñu dugal leen kon jaara mention spéciale di wax toute la presse je vous remercie bég naa ci di ñaanal sama góor gi yàlla bàyyi ko fi ndax moom rek laa dese ah. euh, moom mooy suma doole mooy suma kattan euh, mooy suma lépp ndax moom rek laa fi dese kon moom tamit di ko ñaanal ngoom yàlla sàmm ko doole ko jërëjëf Malick ba kàddu yu guddee maa ngi tuubal ñëpp ak di jégalu ñëpp suñu intention du créer une bataille suñu intention du créer une confrontation suñu intention du semer le désordre mais li ñu bëgg rek moo ñu gën a ñoŋal gën a waxtaan gën a jàppante bokk ndey bokk baay ba xar kanam bi ñu jox presse bi ngir yàlla ñu mën ko changer jërëjëf Malick jërëjëf président euh, ñu di la jaajëfal bu baax ci kàddu yi nim mu ko waxee ñu nuyu tamit euh, suñu doyen dose moom mi yegg si léegi euh, du nu nag kàddu gi dañuy comme ci làmb la tàmbalee dañ ciy demaat tuuti ñu ñëw ci Babacar moom ci làmb ji la ne li nguur dund ñoo ko dundandoo moom mu am kàddu yoo xam ne mu sànni ko ci ba tey fàttali ni am na tamit sunu naataan yoo xam ne ñu ngi tuyoon ci ñëw ñu mel ñoom Baye Ball euh, ak ñeneen ñoom pël bu rafet ñoom ñëpp ñu ngi ci di ñëw Babacar bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ngi suivre ak suñ ñu mën a nekk si àddina bi rek ñu ngi leen di si àddina ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom nuyu ñi nga xam ne. ñu ngi seetaan actuellement ak fu ñu mën nekk di seetaan rek ñu leen di bëgg bu baax a baax di ñaanal jàmm mais mm. du nuyu ñi nga xam ne ñoo fi teew tout la presse ñi fi teew ñëpp du nuyu suñu papa jëlee mm. parce que defe naa ne comme ni ko buur waxee moom la dese mm. yàlla na fan wi gën gudd te wér gi gën a yokk barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suñu doyen Abou Ndour comme ni ñu koy waxee sama doyen son patron maa ngi koy bëggee di nuyu tamit bës boo gisee sa euh, euh, bës ñëw ma jóg parce que li ñuy wax rek ku dul joxe cër du am cër quoi bu ñu demee si xëy na ay at grand frère am la waaye nag à travers lii ñuy def moom ma tàggat tàggat samay morom bañ mën a tegu ci yoon ba nit mën ñoo déglu kon defe naa dafay mérito nag nit ki nga jox ko li mu moom. moo tax mu ñëw ma jóg parce que loolu moo jaadu. maa koy nuyu di nuyu ñëpp ñu fi teew. di nuyu buur géwél di nuyu képp kuy Sénégal ak fa ma nekk si àddina bi rek. ah di ñëw nag defe naa ne olof ne na wax waxaat bu bëri wax mais leeral ay wax la rek. encore une fois ni ma ko waxoon keroog li TV laa koy waxewaat joguñu pour man pour comme combat pour ay tiraillement wala nangam parce que loolu amul njariñ mais dafa fekk que ne rek nit ki tamit boo bokkee ci mbir di ci bay sawaar defe naa ne am na loo xam ne suñu la ko bëggee teg am nga droit kat ne lii lu tax ñu di ma ko teg ki ko bëgg a teg dina wax lan moo tax bu jaarut yoon nga ne ko noo du jàll su fekkee lu jaar yoon la ok amul problème anyway Bour géwél dañ koy masaw parce que suñu royukaay la parce que man yaakaar naa su bës mën na ma bañ bës li may wax mën na nekk te mooy bi ah Sénégal defe naa ne si suma ma juumulee ci site internet buy dugg ci làmb defe naa ne parce que su ma juum bi fi Sénégal di nekk leeral moo fi nekkoon ak Séné ak Sénéweb ci li ma jàpp mën naa juum na ak Dakaractu waa defe naa ñoom ñoo fi nekkoon mais yaakaar naa Bourguewel moo ci nekkoon ba reporteru làmb faar ci wàllum site internet bu daan dem ci làmb ji kon moom moo njëkk wàcc sir le terrain ak micro euh, maanaam wàllum site internet ak YouTube ak yooyu di def làmb defe naa ne su ma bu fekkee amaat na deux heures defe naa Lutte TV lay doon mu ñun ñoo ñëw derrière moom yaa ngi dégg euh, mën nañ mën nañ tudd mën nañ cité Lamine wala Babacar wala Bës yaa ngi dégg mu nekk koo xam ne moom bu liggéey na ci liggéey bu am solo parce que defe naa ne liggéey bi bu amukoon solo tey mbir yi du demee nii parce que nag marqué na ci empreinte am def ci lu leer naññ parce que liggéey boo koy def yow ba yow mi koy def te nit ñi bàyyiwuñ la xel. kenn du la woo ci maanaam tey doo nekk Sénégal waa Dakaractu dañ laa soxla wala waa Sénégal wala waa Nangam te buur defe naa loolu am na fekk na ko ci métier bi mu def lu leer nañ Sénégal defe naa làmb na mu doon defee Sénégal làmb wax dëgg yàlla bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax gisaatuñ ku fa defee noonu làmb yaa ngi dégg donte suñ ko confrère Pape Maguette ba jaar na fa liggéey na fa waaye ni ko buur doon defee parce que nit ñi bokk ñu daal mu jóge fa dem Dakaractu marqué fa empreinte am ba benn moment mu fexe ba di liggéeyloo ay nit. ci loo xam ne moom propre alalam la kon defe naa kooku mu ngi contribuer ci luy tax ndaw ñi am lu ñu jàpp yaa ngi dégg kon nag ku mel noonu defe naa ne am na lu ma def ci lu nga xam ne def na ko ci làmb te gis naa itam ci moom parce que man reporter la xam nga reportage dafa war a ànd ak humour surtout làmb boobu te moom mën naa ne man reportage bi may def am na lu ma roote ci moom ci côté boobu parce que reportage am da nga koy déglu dafay ba am benn humour bu ci nekk boo xam ne yow ñu koy déglu da koy bëgg a dégloo ko dégluwaat yaa ngi dégg kon yaakaar naa ne buur géwél quelqu'un la bi nga xam ne tey li am bërki démb ñaawlu nañ ko ba fa ñaawlu mën a yem parce que li ma gëm mooy ku toll ni buur géwél bu fekkee dafa def benn erreur ak nu erreur bi mën a toll ci li ñu jàpp comme li ma expliqué parce que man la jàpp ma ne erreur maanaam nit ki ñu dégg ko dara nga critiqué ko ne ni muy doxee baaxul wala ni mu ko yore mënu ko yor bu doon ku wax loolu ñu génne la koñ ba nga ne wala ñu génne la réew mi kon defe naa Sénégal tey li fi des du bëri ndax à travers les rajo les télé les sites internet defe naa ki jiite réew mi ñun ñëpp mooy sunu kilifa tey ku bëgg ak ku bañ chaque jour que jëfee nit sànni ko baat cuune la man mënta yor mënta doxal yaa ngi dégg lay am solo kay mooy say wax nga bañ caa ëppal bañ a wax lu bokkul ak la nga war a wax mais nit ki am nga droit ne ni muy doxale baa du ni buñ ma joxee ma def lu gën li muy def wala kii nii toog fii bës mi bu ñu ko doxee moo ëpp xam-xam moo ëpp nangam loolu nit ku ne am nga si droit olof ne na ku boot bu ki xaj baw la bu dee kàddu yooyu fi buur wax la loolu yaakaar naa ne buñ ci jàppee nit ci biir mbooloo di ko wàcc di ko boole ak ay semi ñu di ko génne defe naa loolu pour man tooñ la te tooñ nag baaxul may nag comme li ma wax rek euh, di dimoes bira man Babacar it du ma ne nit yàlla nga lay nuyu te gisuma ko bira bi mu ñëwee ci làmb ji fii parce que bira avant Séné avant fii Dakar CRC bu Kaolack la yore woon liggéey fa liggéey bu am solo waaye parce que ñu ñu doon dem làmb di génn ci àll bi dem reportage xam nañ loolu sa njaay nekk région de Thiès yore làmb Thiès. defe naa bi Thiès di jël drapeau chef de l'état année boobu su ma jumul Abou Ndour mais sama teemal defe naa sa Ndiaye moo nekkoon président CRC bu Thiès yaa ngi dégg kon ñoom ñaar tey te kii mooy président kii mooy premier président bi kon defe naa ñoom ñaar du ma xamuñu làmb non du ko wax parce que am na lu ci def ba tax tey ministre bi fi nekkoon. jamono boobu bi Matar Ba bi mu concerté ak waa làmb woo woo may woo Bira doyloo ko ak équipe bi mu àndal ak ñi mu waxtaanal dégg ko làmb ji kon yaakaar naa ne xam na làmb dafa fekk ne que nag bi ci des tamit mooy ci li ma xam à travers moom ak ñu bari gis naa benn ouverture bu am ci moom mais nag dafa am leen loo xam des fois mën na la indil erreur mooy nit mer kenn du ko faje neneen surtout kilifa. kilifa da nga da ngay gis lu la naqari wala ñu wax la baat wala nga gis loo xam sa biir kër gi ngay joxe dépasse sax nga tànkam lu tuuti dal toog comme ki ko wax mag la kilifa la yor na kër mu ngi yor ay employé xam nga ne ko kilifa la woo ko ci sa bureau mu ñëw nga ne ko ah yow kat nangam ngay concerté wu ak moom dama la seetaan bërki dem ci émission nga wax nangam ak nangam li nga wax lu tax nga wax ko bu fekkee dafa am raison nga jël moom ca la mu wax mu nekk lu lay joyante pour nga gën a avancer jëm si kanam bu ko defee pour man dina gën a rafet. mais kantaa nag fekk nit ab star ni mu toll arène nationale làmb ju toll noonu nit ñëpp ne tirim nga jàpp ko génne ko te loolu bi muy am comme ni ñu ko wax rek dañ ko woo ba ci kaw ñun boobu yëguñu si dara après dem na ba pare ñu koy doog a yëg ndax xëy na bu ñu ko yëgoon dinañ opposé effectivement te loolu defe naa humiliation la te gor kenn du ko toraxal te ñun ñëpp ay gor lañu géwél bi gor la gé euh, géer gi gor la lawbe bi géer la manjago bi ñun ñëpp ay gor lañu ku ñu fi bëgg jéem a humilier mbooloo nga wane sa bopp boo koy wax sa doom ji nga jur sax des fois lu muy doon doon xale boo ko bëggee sanctionné da nga da koy yor ba jàpp ko ber ko fenn teg ko li nga ko bëgg teg waxuma laa nag magum yàlla am jëm kon foofu dama naan erreur bu ngand ak ngand ngand la équipe bu CNG bi def foofu ñun nag loolu encore une fois ñu ngi koy condamné den wax ne nag ñun les sites internet ñëwuñu ci làmb ji nii rek pour ñëw nii rek quoi di def lu ñu neex non non non parce que benn kër gi ñu la yare yaruñu la pour man ci nga war a yor micro rek di wax lu la neex wala ngay def lu neex wala ngay tooñ ku la neex ndax lépp looy def rek ci nit xool ko yow ci sa bopp ak ci sa ay way jur waaye nag bu ñëwee ci benn milieu boo xam ne làmb la tudd mu di ab euh, comité la ñu taxawal jox ko nit ne ko saytu ko yaag équipe bii ki leen ko jox mooy moom moom mooy ministre ministre des sports Alioune Sarr ko yoroon toog fi ay at yu bari at bu waree saa yu waree dem bu bëggee démissionné ministre bu mu tombeel ne ko toog fi pourtant Alioune Sarr ñu ko doon critiqué Alioune daje nañu ministère des sports man moom ak Lamine su ma jumul bës yaa ngi foon kera nee na ñun Lutte TV ay ennemis lañu mais pourtant waxuñu ko ci waxu ranking wala nangam mais xëy na dafa gisoon ne rek xay na des fois ñu dalal ay nit ñu wax lu ko contrer mais des fois tamit dañuy dalal keneen mu wax parce que ñun dañuy vice versa dañuy jox kii kàddu jox kii kàddu yaa ngi dégg. te taxu te maa ngi rappelé dafa mas a def lu ma marqué Alioune Sarr dañu mas a taxaw buntu ministère des sports keroog Alioune Sarr defe naa jël na presque une heure ou de temps di waxtaan ak man Babacar. pourtant mënoon na ma jaay affaire mais ñi waxtaan nii weccoo ci lu baree baree baree bëri kon defe naa nag nit boo jiitee war nga mën a amee dën bu yaatu ouverture boobu di waxtaan ak nit ñi ku def erreur woo ko sa bureau bureau nga yor bureau bi joxuñu la ko pour euh, pour nga toog fa nii rek mais dañ la ko jox pour def fois ay erreur su amee nga woo ki ko def yow ak moom ak yàlla nga waxtaan ak moom li mu def moom. parce que buur damaa gëm ne ni ma ko xamee bu defee erreur suñ ko woowee ne ko li nga def erreur bu ko xamee da koy nangu yaa ngi dégg man loolu laa gëm man Babacar de bu ma defee njuumte boo ma wooyee ni ma li nga def wallaahi nasib bu ma juumee dinaa ne maa juum bu jaaree baalu ma ne la baal ma parce que nit nit ngay du doon ku dul juum amul waaye nag nit même bu juumoon sax nga bëgg koo humilier noo dootul njuumteem day daal di nëbbu yow mi ko bëgg a humilier yaay am tort te lay am bërki dem humiliation la te buur encore une fois tooñul dafa wax xalaatam nit a ko invité laaj ko mu wax xalaatam saagawul xastewul duggul ci vie familiale duggul ci sport bi la yem parce que man damay wax à tout moment que bu ñuy wax rek ci ci micro yi nañuy wax ci sport bi tout court yem fa parce que loolu la ñu sant parce que micro bi du fu ñuy lebee wala ñu fay faye bor encore une fois li li ci li ci soxla rek mooy li nga jox internet yi mu jaar ci aw yoon kon encore une fois làmb ji ñun ñoo ko bokk. ñeneen ñi fi nekk tamit même bu ñu deful laay làmb tamit dañuy ñëw ci làmb ñi ñëpp ñëw ci làmb parce que des fois am na événement yoo xam ne dina leen indi ci làmb mais tey boo demee fu mel ni lictive xam moom guddeeg bëccëg ñu ngi làmb nga dem les arènes noonu nga dem Kewel Info noonu ak yeneen site internet ay bool ak jàppal bàyyi mais am na ñoo xam ne nag ñoom tey dinañ ñëw làmb suba duñ ñëw làmb euh, euh, maanaam exemple fi may waxee mooy am na site internet yoo xam ne concentré wuñu à 100 pour cent ci làmb ku mel ni Nabou Ngom dama ko doon gis ci làmb ji moom laa gën a yàq mais des fois mu raar ne ci leneen effectivement mais ñëpp ay ñëw làmb parce que làmb suñu sport national la ñëpp ci bokk dafa am ñoo xam ne nag dañoo spécialisé wu ci làmb am ñoo xam ne football kese la ñuy couvrir wala am ñoo xam basket am ñoo xam ne sport yëpp la ñuy couvrir am ñoo xam ne lépp luy information ci Sénégal dañ koy couvrir mais encore une fois dama ne site internet yi ñuy xeeb la preuve tey mooy laa ci li may wax bés mi bi may njëkk woo di ma liggéeyloo nit ngay amee vision di xool fu sori man boobu du ma ko rus a wax ah. benn bool bool laan bu nekk ndakaaru yaa ngi dégg du weccet maa ngi ci marché di ambulant di jaay sama fëgg jaay yaa ngi dégg mais bokk naa ci dama yàgg dund làmb ba may nekk xale dëkk ba du ma ko nëbbu daan supporté safaa Guèye nekk xale daan nañ ko may jooy nekk xale man daan dem si àll bi sa jël sama rajo maam di déglu bëgg làmb yàgg tee ay micro di ko foyee dëkk ba ñu di ma tooñee ay iponga rek ñoo ko bàyyi parce que loolu yàlla moo koy def bi ma ñëwee dakaar fii bés ñu xamante ba moom mu ngi jàng après ci loolu laay dem ba ñu fréquenté làmb ci benn groupe bu ñuy wax groupe baax may nuyu ma Samba Dieye président bi ba ma fa duggee nag bu ma woon ñoom ñu ne ma jëndal suñu làmb nga jàngal ñu ko ci groupe whatsapp bi ma di ko def affaire bi di tas bés nekk Canada boobu moom jàng na ba dem Canada di liggéey jot ci ci la mooy këram ma ñëw mu ne ma déglu naa la déglooti la déglooti la mais lii ngay def man nañ ko exploité man nga ci nekk dara ci kaw nag nga nangu ñu encadré la man gëmu moon li muy wax sax ma ne bés day kii après bon à travers ci loolu la ñu jaaree ba li TV boobu mu ñu bàyyiloon man Lamine ak ñoom Pape Ndiaye ak Boucar ak euh, boobu sax Boucar ñëwagul tel appareil la ñu yoroon téléphone nii di dox mais tey Analyse TV c'est le numéro un à travers la lutte sénégalaise actuellement loolu la yàlla dogal jurul seen affiche képp kuy def pay per view numéro un actuellement loolu mooy vision bu sori tey ñaata nit la yor di leen fay tey bu événement amee ku liggéey ci seen office boobu bu bu fekkente ne benn journée nga fa def bis bi nga boo fa ñëwee midi liggéey fa ba ngoon wala nga ñëw fa 3 heures liggéey fa ba ba làmb jeex au moins bés buy tàqali ko yow dina yëkkati 25000 jox la ko au moins te 35000 la ma njëkk a fay. kon loolu mooy bëgg-bëgg dama bëgg ñu xam ne ndaw yii nii buur géwél àndal nii wala ndaw yi toog nii am na ñu vision vision bi ñu am mooy am nañ fu ñu bëgg a dem encore une fois nag Abou Ndour ma la toog maa ngi koy nuyu di ko ziar ci simplicité am xam bërki dem mu ngi dem ba Niger pour topp équipe nationale yaa ngi dégg moom yàgg na ci presse dafa naa ne sunu làmb nekk na fa at jiite nekk fa liggéey fa ba jiite ko nekk na groupe Futurs Médias record ba tey mu xëy tey taxawal les arènes woo ma si ñu nag ñu nekk ci di liggéey yaa ngi dégg ak te yeneen xale nga fa dafa am dara kon defe naa loolu man waxuma sax ministre wala kii que ce man ki jiite réew mi président Macky Sall laay waxal que ni ndaw yi mu ndaw yooyu na leen nañ leen gën a encadré. bu laajee dafa leen yeneen formation sax accéléré ñu di leen ko defal pour ñu gën a maîtriser métier mi gën a mën a tegu ci aw yoon pour que liggéey bi gën a jaar yoon mais quant à ñu di leen boddi Sénégal amul ku ñu war a mën a boddi même kii def naka sudul noonu sax dañ ko war a jéem woo conscientiser ko waxtaan ak moom xam lan mooy problème mais quant à bi ak dàq bi loolu doxul parce que dama koy wax ça fait location ama bu yàggul ANPS ñuy nuyu président bi xëy nañ fii ne dañuy def dañuy at mu jot ñu ne dañuy joxe les meilleurs lutteurs naka nga mën a joxe les meilleures lutteurs nga fekk Abou Ndour fekk bës fekk Babacar Lamine Mbaye Kalom ay ñoom Bukar Lamine TV nga xam ne lutte simple fu mu am ñooñu ñu ngi koy topp dégg bëccëg ñi di topp làmb ngay joxe meilleur lutteur te la ñu def am na ay erreurs yu ca ne ca biir mais lan moo ne parce que ñoom ñu nga toog fa ñu toog parce que c'est des pour pourtant kii ma toogal kilifa la de mais day wàcc ak ñun ci terrain bi li muy daj ñun duñu ko daj ñun sax ñoo ko a nekk patron te bu weer dee ci moom la ñu yaakaar ngir fayeeku abu nduru ngeen toog si ginnaaw su weer dee moom may fay te bu boo ko séenee da nga naan man may patron kon simplicité dafa baax kon encore une fois li mu bëgg mooy ñoom ñi nga xam ne ay kilifa lañ jàng nañ d'accord loolu lépp def nañ ko mais nañu gestu ndaw yi parce que fii boo fi ñëwee bu fekkoonte ne cent personnes nga fi fekk du ñàkk boo leen defaree du au moins di nga fi am quatre di nga leen mën a seppi yóbbu leen ñu mën a jëriñ réew mi ci ne nag mënuñu ko nga leen ci beneen domaine ñu defi parce que loolu mooy affaire bi mais encore une fois daal buur géwél moom ah wax dëgg yàlla liñ ko def ñaawlu nañ ko encore fa fois naqarlu nañ ko di wax ka Sénégal ñun ñoo ko bokk na rafet na lépp rafet nañu jéem a joxante cër nit ki nag balaa ngay laaj cërit na nga jox sa bopp cër ba pare jox sa bopp cër mooy nga jox ki nga jàkkaarloo cër te ñun presse en bi tamit ñu gën a xam suñu bopp ci gën a respecté suñu bopp ci li ñuy def ak fu ñuy dem ak milieu bu ñu mën a dem lool tamit daf ci am solo parce que nit ki tamit mënoo boo dëkkee di jooytu liñ ma def liñ ma def loo def bañ lay def loolu tamit question la ñun nag taxawaay bi ñu war a am mooy nañu am fulla fulla li ñuy liggéey teg ko ci aw yoon parce que tey yaakaar naa ne même bu fekkente ne joxuñu ñu carte presse nationale am nañ si droit bu leen neexee waaye lépp luy xibaar lu gaaw lu mu siiw pour mu tas ci réew mi ñii micro yi ngay gis la fat-fat ñu jox la ko dérive nag fu ne lay am du presse du presse en ligne du télévision du rajo du presse écrite fu ne la dérive di am ñaata ñaata ña man nekk naa fii boobu boobu presse en ligne xewagul wala bu xewee par benn fi am ñaata yoon laa fi dégg ay demante til bi naan ci wàllum presse loolu du dérive koo dem ba koy porte di ko yóbbu ci yoon ndax dafa toog ci télé waxal la wala rajo wala ci benn wala ñu bindal la Aline Ndiaye bari ki dem seetaan naa ko ñu invité ko Aline benn bi jiite woon l'observateur TFM laa ko seetaan muy expliqué ci yoon yi mu am yoon ak yi erreur yi ak yi ak yi nga xam ne convoqué nañ ko ci yoon ci tribunal ci ay affaire Cheikh Yérim Seck noonu keneen noonu keneen noonu te pourtant ñun tey ce sont ce sont des grands journalistes ay nit yu mag lañ ci métier mi mais métier boo gis nag mënta ñàkk ay jàppal bàyyi yaa ngi dégg mais encore une fois. ñu ngi ci ginnaaw buur buur ñun daal bu bëggee dégg de ñu ngi sa ginnaaw di la ñaanal jàmm waaye nekk sa ginnaaw tamit man Babacar wax dëgg yàlla xawma la ci ay tooñ xawma la tamit ci wax waxu ñàkki teggin au contraire ci kaf laa la xam foo agré jàpp nga dara ba taay mën ne la buur nga ne ma wax nga bàyyi ay dégg kon boo bëggee dégg dëgg tous les reporters rawatina site internet yi ñu ngi sa ginnaaw sama wax ji nag mën naa bañ a jub mais bu dëngee maa ngi balu àq mu juboon laa ci bëgg quoi mais di ñaan jàmm ci Sénégal encore fa di ñaan yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi def ko ci àddina bi yëpp di bëggee ñëpp ñaan ñëpp jàmm jërëjëf. jërëjëf Babacar kàddu am na solo euh, dañuy bañ a téye rek euh, Pape moom tam euh, ko xam-xam ne yàgg na ci presse te. am na ci xalaat boo xamante ni moom yu bari ci moom lañ koy jëlee dañ koy jox kàddu moom mu ñëw ci beneen angle ndax waxtaan bi nee naa leen tey euh, bëri na yoo xam ne war nañ cee a waxee bisimilah euh, sama confrère yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci ci turam ak euh, santam di nuyu ñi nga xamante ne au moins présenté nañ ma xawuma leen woon. peut-être que ci beneen làng bi la ñu nekk muy wàllu làmb ma leen di respecté bu baax a baax a baax ñun nag ñu ngi nekk ci côté information bi te ñu bari ci yéen yéen a ngi ñëw ci côté boobu noonu di masawu tamit suñu grand buur moom ci millier bi lañ ko fekk jamono yooyu mu ngi Sénégal comme ni nga ko waxee fii jaruloon ñuy jaaraat ci kàddu yi mais man lu may wax mooy wàllu technicien yi wàllu techniciens yi seeni sécurité sama gars yi ñun ñëpp benn lañ xëy na maa fi toog di wax rek mais ñun ñëpp benn lañu su ko weesoo je suis vice-président des cadres professionnels du Sénégal di ANCPS njiit li di Massayer Thiam nekk Touba TV xeebante wu ñun ñëpp ñun ñëpp jaar nañ ci lii fu ne jaar naa sama liggéey mu mujjee def ak Cheikh Yirim Seck man maa taxawal Yirim Poste kon xam nañu li nekk ci biir ak fi gars yi toll man nag conseil bi may joxe techniciens yi en particulier mooy ñi ne ci terrain bi sama gars yi liggéey bi rafet na lool mais xolu far bu mu génn bis bu génnee rek danger ñëw ci yéen te warut te kilifa yi lépp lu ñuy wax suba ba jant bi so seeni intérêt politique rek a leen ko lal feeg yaa ngi liggéey gëm sa bopp am fulla am fayda génn kilifa du la yem ñu bari ñi ci yéen xam ngeen ma man ci Déthié Fall laa nekk akay ngay coordonnel fulla ak fayda la liggéeyandoo kon loolu du du sama ñàkk fayda wala sama sama rafetaay moo tax déedéet loolu mais dama man dama fonk dama fonk cadreur bugguma ñuy wax cadreur lu nga xamante ne rafetul walla journalist fu ma ko fu ma ko gis danaa wax ak yow ak koo mën a doon ci senegal waaye tamit ñun tamit nañuy xoolaat suñu bopp suñu ay comportement dafa am bis ñuy lancé mooy bi ñuy lancé carte nationale yi nii ministre bi fi nekkoon ma jël kàddu wax wax li ñu métti yépp ma pare mu ne ma uude nu mu la gisee rek la lay ëwalee te dëgg la yéen seen biir ni ñu dem ci làmb am expérience di liggéey seen xel lañuy root pour teg seen boîte yaa ngi may dégg kon métier moomu yow mi koy def danga ko war a jox cër man je suis pas là pour joxe kenn leçon mais dinaa wax ni nañu am fulla am fayda ñi ñuy liggéeyloo tamit nañu def seen kéemtalaay kattan pour ñu teg ñu ci ay ay ay ay ay ay cadre yu baax gis nañ fi bu leen bàyyi xel gis nañ fi temps yee passé benn activiste du ma tudd turam muy mettre en mal les techniciens les jeunes reporters ci salaire yu précarité yi ñu leen di fay et temps moom da doon woote inspection du travail gars yi di daw ci ginnaawam yéen ñi def ko ba mu doon li mu doon pourquoi muy jaxase patron de presse bi ak élément am pour lan pour ay intérêt boppam déedéet gars yi bu leen dugg ci débat yooyu bu kenn nangu di dugg ci benn débat bu ñu dóoree lacrymogène bu kenn daw sama gaa yi daw leen ba ngeen di ami tànk daw leen de maa leen wax lii gars yi seen bopp rek lañ fi nekk xeex combat yi ñuy xeex nag dañ ci ànd ñun ak yéen maa ngi ci beneen boor bi mais du ma réeroo yéen mukk parce que man chaque jour damay wàcc ci terrain damay dem ci samay convention dem liggéeyi teg sama caméra ñu bari ak may gis damay teg sama caméra di filmer su ko laajee dama koy def ñuy wax ak ministre de l'intérieur mu dimbali ñu ci ay élections yu metti la ñu jëm. keroog maa ngi def benn vidéo ne ñun ñoo war a doon sacrifice élection yi te su ngeen ko nangoo la te waroo leen ko nangu ndax ñun ñëpp ay kilifa nañu am na lu ñu war ci réew mi ñu ngi koy contribuer démb dama ko gis mu dem seeti ku ñu daj magasin am jeune la jeune la maa ngi koy interpellé noonu mu ko joxe bopp sàmmaloo ko ay mbiram mu sàmmal ko les cadreurs waaye tamit ñun tamit li ñu wax ñu di ko def ñu uti ay carte sama gars yi uti leen carte man nag amaguma ko jafe-jafe bi waa Dakar con confrère Dakar ak ci am keroog tribunal ñu yor seeni récépissé lu ci mel ni bàmba mi yor récépissé ñu ne ko doo dugg ministre de l'intérieur loolu tamit encore une fois xaw ma lan lay nuru man comprendre ma bu mel ne Dakaractu seeni seeni seeni cadreur xam nga yor ay récépissé ñu mel ne ñeneen yor ay récépissé tàllal la ko nga ne nga ne duñu dugg mais man mii di wax ak sama récépissé ngi nii xaar leen ma woon leen kañ laa ko déposé lii mooy cutus bi lii mooy sama cutus maa ko maa ngi ko def le dix 18 juillet le 18 juillet laa ko laa ko déposé 2000 francs laa fay su ma ba mu fa jógee ah ma dem ministère. ñu jox ma ma fay dix mille francs lii ma yor gànnaayoo ba fii may waxee ak yéen xawma sama carte presse xam nga buur sax nee nañ ko duñ nga jox man promettre nañ ma nee na di nga jaar commission parce que ñun expérience lañuy jàlle ko lii fexe leen koo am ba kenn du leen jam daan leen seen doole man loolu rek laay ñaan encore une fois président la république lay interpellé nag ak képp kuy acteur politique na respecté cadreur yi respecté journalistes yi encore une fois parce que fii ku fi doon dara sawaay micro yi ñoo tax waaw man daal ci gàttan di masawu bu baax encore buur parce que euh, du yoon sax ñu ne ko naan ay wàccal ak doo wàcc xam nga affaire làmb nag moom bon sama expérience da ci xaw a xaw a limité waaw mais du yoon ñu ko naan ay doo fi jaar ak fii la fii la xari jaar ak fii la bëy jaar ñun nag ñëpp lañuy nuyu di siyaar ñëpp fexe leen sama gaay ñu nekk en régle ñoo ngi waajal benn affaire bu nga xam ne dama ne woon du ma ko wax fii Malick expliqué naa ko képp ku yor chaîne YouTube parce que il faut que gars yi ñu jëlee leen devant am fulla fayda du ay wax nii de gars yi dañuy utiliser nii après ils s'en vont ñoo fi des képp ku yor chaîne YouTube di def information il faut ñu def bloc il faut que ñu def bloc seen kanam ñu respecté ñu le mot respect nag. yow yaa koy jox sa bopp waaw may ñaan nag kàddu gi dëgër na nii la ma sunu borom bindee waxuma pour yooxu kenn j'ai la voix rob may siyaar ñëpp képp kuy technicien ci métier mi saay man lii dama ko fonk man lii lu ne def nañ ko ci mais lépp rek nit ñu dawal yor say entreprise di liggéeyloo ay nit ñu lay fay sawaay benn waay toog fee ne xam nga wax ay waxam xam nga pour yow nga jaay sa bakkan ndax lan reconnaissance waa ji xam naa ko ñun ñaata nit lañ xam man ñaata nit laa xam ñaata kilifa loolu jarul amul sens li am sens muy sawaay nga ne ci métier mi di ko joob tey bala laa kilifa woo da koy seetaat man bala maa kilifa di woo daf koy seetaat man du ma koo xam dañ lay woon yee eh, booy eh, nga lambar lambar non mais loolu yaa koy incarnel sa bopp may ñaanal ñëpp jàmm Sénégal yàlla fi jàmm yàgg cadreur yi yàlla ngeen am jàmm cadreur yi yàlla ngeen am jàmm saa yi ngeen xool bu baax nag fi ngeen teg seen tànk parce que affaire bi mu jëm metti na trop trop trop wasalaam. jërëjëf jërëjëf doyen li mu wax am na solo ni ma ko waxee sànq am na ci sunu confrère yoo xam jaarale ko si buur géwél su ma juwul waaye fekk bi samay ay référence ku ku mel ni Ibrahima Faye ma ma ma ma ko lool ci jox ko cër lool ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def donc démb laa laa ñëw am ku ma di di ma laaj dina ma dafa ndax dafa am conférence de presse ay journalistes ma ne ko ah man loolu je ci pas au courant mu ne ma ñoom ñoom buur géwél est-ce en ligne ma ne kon xaaral ma jéem a woo buur ba laajte ba xam lan moo xew mm-hmm. noonu laa def woo ko moom buur jot ko laaj ko ci la ma expliqué ne ma effectivement dafa am une conférence de presse boo xam ne ñu ko war a def fii tey donc ma ne ko ma ma laaj ko mu mu jox ma ay explication un donc ma ne ko kon bu incha allah bu subaa naa fa ñëw parce que mbiri moom boo ci bokkee. bu bu ñuy waxtaan loo loo xam ne dafay jëmale liggéey bi kanam. bu bu la yàlla mayee nga am jot ma mën nga ñëw rek quoi fekkee. looloo looloo waral ma ñëw donc ma fekk fi nag ñaari ay point ah. parce que defe naa su ma juumul euh, buur dafa njëkk a ne considération bi nga xam ne presse en ligne war na koo am. su ma juumul ah loolu mooy le premier loolu nag li ma si li ma siy wax man mooy. considération kenn duñu ko jox ñun ñoo koy jox suñu bopp considération kenn kenn du ko jox kenn nit ki moo koy jox boppam parce que am na loo xam ne bu boo ci nekkee di ci liggéey am na lu ci Babacar doono wax mooy li fi ay ay ANPS di def ay làmb ay nangam te ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci làmb vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours ci sur sept douze mois sur douze du du du premier janvier au 31 décembre ñu ñu ñu ngi ci ci làmb lan moo waral bu ñuy wax waxu làmb fi ñu koy wutee tànn ñooñu ñu beddi leen hmm. peut-être am na lu ñu wone lu ñu gis ci ci ñoom ba joxuñu leen cër bi bi leen war a jox loolu lan moo ko waral kon loolu ñun question boobu la lañu war a posé ñun lan moo waral loolu leneen li ma ciy teg mooy defe naa carte presse bi bu nga ko doon wax sànq hmm. carte nationale de de presse xam nga loolu biñ ko yàggee wax ak ak ak ak léegi xam na yàgg trop yàgg na trop dix ans yi mu wax pour ñu wax la ko loolu boo nekkul un journaliste la boo nekkul un journaliste bu nu bu nu assermenté dañ lay laaj expérience su ans si benn rédaction te ce n'est pas n'importe quelle rédaction parce que rédaction am na fii presse en ligne ñun ñëpp ñu ngi nekk si ay ay rédaction mais presse en ligne bi nga xam ne ñoo ngi wax uniquement ci làmb ñan ñoo si kii régulière parce que Ibrahima sa Faye bi nga xam ne moom moo jiite association nationale de de la presse en ligne fii au Sénégal dafa am ay charte yoo xam ne moom nga war a joxe pour dafa am ay charte yu la yu la yoo war a indi teg ko wane ko pour ñu ñu ñu ñu mën la boole ñoom ci seen association. est-ce que ñun ñi ñi nekk di di yëngu si si wàllu presse en ligne bi yëngatu surtout si wàllu làmb est-ce que ñun dem nañ fa foofu ba. ba ba am euh, maanaam kii reconnaissance loolu tamit war nañ ko def parce que loolu ay sart la dafa am ay conditions yu ñuy laaj nii nga war a mel jaar fii am lii am lee pour mun a bokk loolu it ñun mooy li sama collègue bi doon sànq mbir mi boo ci nekkee da ngay jéem a régulier fi ñu war a jaar pour ñu ñu ne bu ñu lim ñi ñi tegu ci yoon da la ci boole da nga war a jaar jaar leen foofu jéem a xam yan condition la ñu teg pour bokk si association boobu mën mën mën ngeen ngeen mën a bokk carte nationale de presse xam nga tey am na foo xam ne tey su ngeen fa naroon dem tey suñu ne woon tey assemblée nationale wala palais wala yenn institution ministre wala nangam mooy def ko conférence de presse sa carte nationale de presse boobu soo ko amulee du doo fa dem dañ koy laaj te loolu pour nga am ko dafa am fooy jaar loolu tamit ay ay ay charte lay ñu teg loolu tamit nañu nañu jéem a teg suñu bopp foofu ba nga xam ne bu nit ñi taxawee wax nga mën a taxaw wax parce que pour nga mën a fëgg dënn wax dafay fekk yow charte yi ñu laaj da da nga waaye soo ko remplirul ñëw fii di di wax rek dafa yomb loolu mooy moo may may parce que comme wax ji mënul gudd trop fa am laa tey ñu ñu xaw ko gàttal waaye dafa am lu buur wax sànq ñu ñëw mooy problème bi mu am ak waa CNG su ma juumul sax moom mooy moom moo xaw a indi lii foofu nag li ma ciy wax lenn dèjà laay liñ njëkk wax mooy mooy dèjà li ñu wax ci li ma comprendre mooy ne Bira dafa ne comme que buur géwél daf koy euh, attaqué alors bu ñëwee dañ koy yéegal ci kaw genre loolu man li ma si nekk foofu nag mooy Bira sama nit la président CNG la ni ma amee relation ñëpp laa amee relation ak moom waaye xam nga xam nga loo xam ne yàlla su suñu borom sax am ko mm-hmm. yàlla yàlla sax am amul unanimité mm-hmm. xam nga le prophète paix et salut sur lui moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul unanimité dafa am ñu fi doon taxaw di ko di ko ŋàññi di ko xeex sëñ Touba maam Cheikh El Hadj Malick bu ko maanaam ñi fi ne lu ñu amul bira bira mënu ko am mënul nekk mooy unanimité autour de bira du am du ma sa am kon bira dafa war a nangu ne dafay am ñu ànd ak moom am ñu du ànd ak moom loolu am na la critique nag tant qu'elle est objective et constructive man dama ci ànd ba ñu ànd ak diwit beuse mi ànduma ak moom it ko koy wax waaye nag dama ko dama koy teg si ci ay ay ay sat yu wóor bu du ànduma ak moom rek mooy neexuma wala li mu sol neexuma jin bi mu sol baaxul wala tànk nag non surtout une institution parce que Bira est quand même une institution du tegul fu boppam fi fi mu nekk le ministre moo ko tànn donte on on n'est pas encore fédération donc on est une d'exception moo tax moo fi mu nekk tegu fa boppam waaye le ministre moo moo moo ko fa teg loolu su ko defee pour man dafa juum mooy àndul ak man dañ ko war a corriger peut-être loolu am na fu mu juumee moom mag ñi ñu àndal waaye man it bu ma doon buur du ma du ma du ma woote conférence de presse ci loolu su ma déggee loolu ñu ne ñu ne nee nañ moom moo joxe ay ordre pour ñu def lii def lee damay chercher rencontrer Bira moom su mënul dem moom en personne moo moo ngi jiite association def naa presse en ligne si ñi ñi yëngu ci wàllu lamb su ma juum loolu moom su su fekkee mën a dem mu yebal ñaar bu ñett oh, il il cherche à à rencontrer Bira Sène ndax moom nag nit tam loo ko bañ bañ tam waxal ko dégg mooy Bira tëju tëjul buntoom Bira moom gis gis ko moom taxu koo jafe donc euh, buur ak ñi ñu àndal mën nañu ne dañuy chercher à rencontrer Bira ba xam li ñu dégg. ndax moo ko wax lan moo ko attention xaaral xaaral wax la par rapport à lii laa wax par rapport à lii xew c'est-à-dire que jël na une décision boo xam ne on n'est pas d'accord dama naan naa dem wala ma yebal ay nit ñu toogoo mu ne ko décision bi bi ñu jël est-ce que yaa ko jël mu ne waaw pourquoi nga jël ko mu ne léegi léegi lii ngeen waxtaan waxtaan ba teg su fekkee nag amul leen lu ngeen d'accord foofu ngeen ngeen ngeen ñëw woo ñi ngeen war a woo waxtaan ak ñoom parce que il faut ngeen xam leen gis nga gis nga bu doon fédération la bu làmb amee accréditation du du promoteur moo ko joxe fédération moo koy joxe gis nga match yi am Sénégal yëpp du du kenn ku dul fédération ñoom ñuy joxe euh, journaliste yi bëgg a waaye fii promoteur moom moom moom làmbam parce que moom mooy un promoteur privé jël alalam dugal ko ci làmb accréditation moo ko joxe loolu wàllam la waaye gis nga bu la xasee jox accréditation ba nga dugg ci ci biir làmb ji foofu CNG moo ko moom gis nga enceinte bi CNG ba pare ñu mu wax soo xasee jël sa carte xam nga sa carte la lan la may sa carte presse mooy dafa am une tribune réservée à la presse ñun dem nañ couvrir ay lamb France ak fépp fu ne Niger fu ne boo dugg see dafa am fu lay wax ne lépp journaliste yi fii la ñu ne gis nga fi fi ñu toog yéen fi ngeen di nekk bëgg ko def droit droit de fii leen di bàyyi ngeen ne foofu c'est droit te loolu kenn géré ko ku dul CNG moo leen mën nañ ñëw ne leen presse ku ci am accréditation ba pare par exemple diw moom mooy tëgg lu Ndiaye mooy tëgg tey jox na la accréditation boo xam ne ba dugg fee nga nga nga yëg loolu enceinte bi loolu moom róoru euh, kii la CNG moo ko géré encore que nañu collaborer moo gën parce que bu ñu toggee tey bu CNG ne ku ko amul carte carte nationale de presse doo doo dugg maanaam dootoo dootoo am accès enceinte mun na koo xam ah mën nañ dem dem jamono mun nañu bu la promoteur joxe agréation boo duggee bu dugg fi ñun fi ñu leen teg journaliste yi ku amul carte nationale de presse doo doo fa nekk koo xam ne euh, euh, association nationale de presse en ligne bi Ibrahima dafay jiite reconnaître la bu bu bu la joxatee agréation euh, boo ñëwee doo doo doo doo toog fi fi ngeen toog yéen presque mën nañ fa yegg kon nag na nañu nañu jël mbir mi ak ak ak intelligence nañu fagaru ñun suñu bopp nañu fagaru wuti li li tax ëllëg ci biir ñu ñu ñu mën ñu boole ci ci ci ci ñi ñuy wax presse en ligne parce que avant d'être une presse en ligne on est d'abord une dafa am lu mu laaj gars yi dañu waxante dëgg ndax man ba je serais mal placé di si wax su ma nekkoon ci presse écrite rek ay record rek ay suul laa mag nangam nekk fa rek mais comme léegi dama dugg presse en ligne mën naa ci wax nañu xool suñu bopp mbokk yi nañu xool suñu bopp parce que am na loo xam ne dafa yomb. am na loo xam ne boo ci duggee yow nekk par àll ñun ñëpp ñu nekk ci nga gis parfois ni ñuy doxalee wala ni ñuy waxee yow da ruus nañu xoolaat taxawaay bi ji jekkal ko bu baax a baax a baax képp koo xam ne amagoo yenn ju jumtuwaay yi si wàllu niveau intellectuel nangam na na na nga dem yokk dama jàngi da nga dama jàngi xam-xam tuuti dama jàngi ba xam les taxes xam nga lu gën a bon si àddina ngay wax ci ci loo xam ne xamuloo parfois da ngay dégg nit di wax di wootee nekk un connaisseur ci lampadaram di wax li muy wax wallaahi billaahi wallaahi wa taala li muy wax dara amu si tegu ko ci texte tegu ko ci nekk ci ci ci lu ko neex rek la la la ko teg loolu tamit nañ ko éviter feneen fi ma jeexalee mooy là u c'est c'est dangereux dama dégg buur muy wax ne nous nous demandoo wala nous réclamons la départ de de de Birasène sama waay la de. sama sama collaborateur dañuy waxtaan ci lépp ci lu bëri ma naw ko loolu ci ci liggéeyam dama xamul ndax loolu buur wax il il le dit en tant que président association en ligne maanaam mu engagé ñëpp wala il le dit en tant que moom parce que amuñu prérogative ñun presse amuñu prérogative de de demander de de départ u Bira amuñu parce que Bira ban koy fal laajuñ ñun sunu sunu sunu sunu avis laajuñ sunu avis le ministre. si li nga xam ne moom mooy di di pouvoir discrétionnaire discrétionnaire ba nga xam ne Macky Sall moo ko jox moom moo woo ay nit am ku mu wóolu nekkoo ko da da dama lay dégg kon ñun amuñu prérogative bu demander départ Bira Sène foofu tamit j'en appelle un peu à à la vigilance si ki ki nga xam ne moom mooy euh, moom mooy buur ñu gën a waxtaan daal en tout cas fi ma jeexalee mooy nañu gën a waxtaan nañu teg mbiri si yoon waaye nañu gën a xoolaat su suñu bopp et puis bu ñu xeex xeexu kenn journaliste na nañu xam lan lan mooy éthique lan mooy de de déontologie lan mooy collecte information moom mooy lan lan mooy traitement information mooy lan lan mooy diffusion information moom mooy lan lan mooy équilibre moom moom moom moom mooy lan loolu loolu c'est un minimum loolu boo ko xamulee mënoo def presse nañu wax ne dëgg da ngay def da ngay def rek lu la deex defoo presse tu fais autre chose noo noo ko mën a tuddee tuddee ko waaye defoo presse kon nañu gën a jàngaat jàng nag du wees ñun ñëpp dañu jàng Babacar mi ma nekkal par exemple damay jàng ci moom muy jàng ci man Mansour may jàng ci moom muy jàng ci insulte insulte beuse mi waxi nopp may woo wax la loo xam ne xamuloo ko woon waaye nañu gën a jàng bu paree nañu am ay euh, organisation loo xam ne am na doole bu paree nañu mettre en avant dialogue gis nga xët-xët réglé wul dara ndax ñoom bu ñu defee noonu ba ñoom tam ñu ne ah ko kon noonu la ñu nañ ne léegi à partir de demain képp ku amul na nationale presse dootoo ñëw wala boo ñëwee da nga yëg ca kaw boobaa ñun mën na métti ci ñun wala ñu ne képp koo xam ne. association nationale de la presse en ligne reconnaître la dootu am accès wala bu la promoteur doxee accès boo ñëwee da nga yéeg su boobaa mën na métti si ñun te su boobaa bu ñu xamulee la ñu nekk naan dañuy grève dañuy nangam alors que c' est comme ñi naan promoteur bu tëgg làmbam ne ne benn accréditation laa joxe nga ne da nga jox accréditation par la force amul fenn parce que un investisseur la privé boo xam xamuloo fan la jógee fan la fan la dugg génn bu am ay millions ci tëgg combat am munoo ko ne par force damay dugg sa gala mënul ne c' est pas possible ñun ñoo war a chercher contenu bu ñu jox sunu sunu sunu direction ku ci amul un contenu ndax nga bëgg ko teg ci làmb am nga nga dem nga dem su dina arrivé moment boo xam ne parce que ñoom ñëpp promoteur yu bëri am am na seen kii ya ah, site Fallou Ndiaye am na Kewel Info euh, Assane Ndiaye am na am na Gaston nekk keneen keneen keneen dinañ dem ba nga xam ne ñoom ku ci tëgg bu dul ñii nga xam ne mënoo dem saa ñoom da nga naan kenn dugg ku dul sama site te loolu am na ci droit nag. bu loolu c'est pas un droit pour ñun ñu ne dañu dugg par accréditation par force amul c'est-à-dire que di ma doon accréditation donc mbokk yi loolu laa amoon wax ji mën na gudd su su guddee rek te dëgg ngeen baal ma waaye jublu ci lenn lu lu lu dul defar maa ngi jégalu merci beaucoup jërë ngeen jëf. jërëjëf doyen kàddu yi am na solo. non ñu ñu ngi ànd toog wër ñu am loo xam ne dañ koy dund ñun dañ koy dund ci métier mi. te ñu xam ne tegul fenn du yoon ñu war koo kaas benn man du ma fi nekk di wër waraan benn ci carte de yi yi grand bi jee wax man ci laay wax de un naka nga mën na yore euh, bu ñu xoolee ñi fi toog ñëpp ay jeunes la du état moo fi taxawoon lancé woon pour xëyu ndaw ñi defe naa quatre cent mille emplois su ma juumul ñii fi toog kan la ci état jox liggéey ñi fi toog nii kan la fi état jox liggéey amul ñi toog bi nii kan la fi état jox liggéey amul bu nu tàmbalee bës li mu yor ko buur li mu fay ko keneen ak keneen kon dafa am ci yoon bu nu war a jaar waaye yoon bi ni ñu ciy jaaree day fekk nit balaa jaar ci yoon danga koy wan yoon bi. wala nga yoon mënoo xëy xëy na amaat dama jaaral ci yoon bii te wanoo ko yoon bi yoon boo ko sakkee kenn du fa mën a jaar day teggi ndox bu daan jaar ci yoon ba nga xëy fatt ko day teggi ut feneen fu mu jaar dañ wanul yoon wi Pape Doudou am na lu mu souligné sànq carte presse yi da ngay déposé jënd euh, fay kitus 2000 francs amul dara luñ ci maye. dañ ko wax te dee amul dara luñ ci maye cutis 2000 francs ngay ngay ngay joxe dépôt 10 000 francs commission bi lan lan la jox dara yaay indi say say say document yaay indi say photo yaay def say déplacement nga pare ñu bu fekkee jox nañ la carte presse 12000 francs nga joxe ci mën na am nga am carte mën na am doo am carte mais man li ma njëkk a déploré mooy récépissé lan lay lan lay signifié boo déposé carte d'identité nationale récépissé bi lay jox lu muy tekki valable na bu la policier bi jàppee ah yor nga récépissé dafa sa carte dafa génnagul pourquoi carte presse nationale récépissé bi lay jox valable nanu xool bu nu demee bu bind la récépissé ba caché ko caché boobu dafa war a am valeur kon cachet boobu ñu ci def amul valeur signature boobu ñu ci def amul valeur kon ki toog ci bureau bi lan la fay def